هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبحا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المخسرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الشور فتخطون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy dégloo ak di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu àq di leen bal àq di wax ni ñu ngi ñëwaat ak yéen ci seen tafsirul quran comme ni ñu leen koy defalee bis bu nekk ci waxtu bi ci weeru koor bi xam ngeen ne tey mooy suñu ñaar fukkeelu fan ak ñett ci weeru koor bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu ñu eggale ko comme nañ ko commencé te mu nangul ñu nangul leen nangul mbooleem jullit tey ñu ngi ñëwaat ak yéen ci beneen saar muy suratul naba suratul naba mi ngi am ñeent fukki aaya màkk la wàcce mu nekk saar boo xamante ne nii mi ngi ma mi ngi wàccee yéen yàlla subhaanahu wa taala mi ngi ko wàcc si yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu fekk ne mi ngi màkk ginnaaw bi mu wàccee sa ala saa ilun si la suratu naba bi wàcc suratu naba nag li nga tax li tax yàlla wàcce ko mooy bi yàlla subhaanahu wa taala yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñëw di leen di waar ñi nga xamante ni ñooy waa Quraysh ñu commencé nag di ko laaj naan ko yow daal lii ngay wax nii kañ lay ñëw lii ngay wax nii ne yowmal xiyaam su jotee dañ ñuy mbugal ak dañ ñuy régler lii kañ lay ñëw saar bi mi ngi ko tuddee suratu naba comme yeneen saar yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon rek léeg-léeg bopp saar yi la ñuy tuddee saar yi comme alwaqia ak alxaq ak yu mel noonu bisimillahi rahmaani rahim ñu ngi commencé suñu suñuy wax ak suñuy jëf ci turu yàlla bi nga xamante ne nii moom mooy sell te màgg yàlla bi nga xamante ni mooy yërëm mbooleem mbindeef ci àdduna waaye mooy yërëm ñi nga xam ne ñoo ko gëm ëllëg yowmal xiyaam yàlla mu ne amma yatasaaluun mu ne amma ana ci lan yatasaaluuna la ñuy laajante ñoom waa Quraysh ñoom ñi nga xamante ne ñoom la yàlla yónni woon Muhammad si ñoom ana lan la ñuy laajante anin naba il azim mu ne li ñuy laajante mooy xew-xew bu màgg ba xew-xew bu màgg bi ñu ne mooy lan mooy yowmal xiyaam xew-xew bu màgg bi am ñu ne ñoo xamante ne dañ ni moom mooy alxuraan bi nga xam ne moom la yàlla wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk loo xamante dafa ñëw di leen xibaaral naba azim ñu ne mooy xibaar bu rëy bi nga xamante ni mooy alquran ñëw di leen xibaaral li nga xamante ne ni moom mooy li leen di jariñ fii ci àdduna indi leen tawxiit indi leen li nga xamante ne ni moom mooy li yàlla wàcce ci ñoom kon su àll ak jawaab dañoo yàlla dafa laajte ba pare daal di tontu amma yatasaaluun ana si lan la ñuy laajte mu ne anin naba il azim dañuy laajte ci li nga xamante ni moom mooy bis bu màgg boobu am nañu ko firee noonu mu yowmal xiyaam am ñu ne dañ koo firee mooy xibaar bu màgg bi muy alquranul karim waaye yowmal xiyaam moo gën a wér ndax yàlla nee na allazi hum fihi muxtalifuun mu ne bis bi nga xam ne ñoom dañ ciy uute ñi naan dina ñëw ñi naan du ñëw ñi ne yowmal xiyaam dina ñëw jullit ñi gëm ko di jëf pour lu leen cee dugal a- àjjana waaye yéefar yi ñoom weddi ko daal ni yowmal xiyaam du ñëw ndax ñun kat bu ñu deewee ba ñu suul ñu dootuñu dekki mukk yàlla mu ne kallaa sa yaalamuun xal set ngeen a xam de yowmal xiyaam bu jotee wala bu ñëwee yaay yàlla mu ne di ngeen xam summa kallaa sa yaalamuun mu ne topp di ngeen xam yàlla daf ko taw kii wax ko ñaari yoon daal ni daf ko tayid daal di koy feddali nee na di ngeen xam mu waxaat ko ne daal ni di ngeen xam kon lii dig la boo xam ne yàlla daf ñu koo dig waayit la boo xam ne yàlla daf koo dig ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi yàlla daal ni xool leen li ma def lépp su ma defee lii may def nii su ma leen diggee ne yowmal xiyaam dina ñëw war ngeen koo gëm mel ni dañ ne yàlla lan nga def ba ñu mën a gëm ne dekk dina ñëw mu ne alam najalil arda mihaadan xanaa du man yàlla maa jël suuf sii defal leen ko muy lal tàllalu ngeen ciy tëdd suuf ni ko yàlla bindee ak ni ko yàlla liggéeyee yàlla bu leen nee man mën naa leen a dekkal su ngeen deewee war ngeen koo gëm yàlla mu ne wa waja alam najalil arda mihaadan wal jibaala awtaada mu ne ma jël doj yi def ko mu nekk lu dëgër xoolal doj ni ko yàlla di sampe ci suuf doo gis amul reen amul dara waaye bu ko yàlla sampee mu nekk doj yu gudd yooyu amul lu ko mën a daaneel xanaa kàttan ni yàlla subhaanahu wa taala moo tax mu ne yàlla dafa bëgg ñuy waaru ci li nga xamante ne mooy ay jëfam ak li mu def moo tax mu ne ma def suuf si ma def doj yi ñu nekk loo xam ne dafa sax nekk loo xam ne amul reen amul dara waaye dafa sax ci suuf si dëgër këng mu ne waaye wa xalaqnaakum azwaajan ma bind leen ngeen nekk peer góor ak jigéen loolu man yàlla rek man maa ko mën amul keneen koo xam ne mën naa bind kon su ma leen ne dinaa leen rey dinaa leen dekkel war ngeen koo gëm yàlla mu ne wa ja'alnaa nawmakum subaatan ma jël seen nelaw yi def ko def guddi mu nekk dalluwaay yàlla su ko neexoon mu jël àddina bi yëpp def ko bëccëg ñuy kër këri rek ndax wax na ko ne su fekkante ne woon man yàlla damaa def guddi gi mu nekk sarmadan kan mooy mën a indi guddi kenn mënu koo indi waaye yàlla mu ne wa ja'alnaa nawmakum subaatan man maa jël seen nelaw yooyu def ko mu nekk noppalukaay guddi ngeen mën a dal mu lëndëm su ko defee soo tëddee nga mën a nelaw sa xel mi nekk loo xam ne lu dal lay doon mu nekk noflaay ñeel leen ñeel ci seen yaram gis nga nelaw guddi sax ba tey booy xool nu roowul ak nelaw bëccëg nelaw bëccëg lu yëngatu nga yeewu ba pare sa yaram bi du dal ni mu war a dale waaye guddi nag yàlla daf ko def da cee def subaat da ngay sax da ngay dal sa yaram bi nekk loo xam ne luy noppalu lay doon kon yàlla moom mooy ki nga xam moo xereñ mu ne waaye wa jaal naa layla libaasan ma jël guddi def ko mu nekk mbalaan ñeel leen su guddee mu lëndëm yàlla ku nekk mu jox la sëb néeg fooy nekk tëj sa bunt bu la neexee sax fay sa làmp mu gën a lëndëm ngeen dal fa nekk ñoo xam ne da ngeen di suturlawu ci lëndamaayu guddi googu yàlla mu ne wa jaal na nahaara maashan mu ne ma jël bëccëg def ko muy sàkkuwaayu wërsëg bëccëg bi leer naañ ma indi jant jant day indi énergie ci yaramu doomu aadama daal di indi leer bi nga xamante ne mooy leeraayu bëccëg ngeen mën a def seeni soxla dem uti lu ngeen dundee lu ngeen lekke moo tax mu ne wa jaal na nahaara man yàlla wala ñun yàlla ñoo def bëccëg bi maashan mu nekk dunduwaay wala sàkkukaayu dund wala utukaayu wërsëg loo xamante ni di ngeen ci mën a dund yàlla mu ne yemuma ci loolu de mu ne wa ba may wa banay naa fawqakum saban shidaadan mu ne ma tabax ci seen kaw ma tabax la la jëfandikoo muy asamaan sabaan juróom-ñaar yoo xam ne yu dëgër lay doon juróom-ñaari asamaan yoo xam ne tibaaxan la bi nga xam ne moom la ñuy gis mooy asamaanu juróom-ñaareel mais am na yeneen juróom-benn asamaan yoo xam ne ñu ngi tegu ci kaw asamaan bii nga xam ne ñoom ñooy gis moo tax yàlla ne sabaan shidaadan man maa bind juróom-ñaari asamaan yoo xamante ni yu dëgër la juróom-ñaari asamaan yoo xamante ni yi woo koongu la kenn mënu koo kenn mënu cee gis juumte kenn mënu cee gis rëq-rëq kenn mënu cee gis dëng-dëng te kat amul kenn boo xam ne sax daf koo téye yàlla mu ne wa jaal naa siraajan wa haaja mu ne ci kaw asamaan soosu bi ma ko bindee ba pare ma daal di ciy def li nga xamante ni moom mooy làmp boo xam ne bu leer la làmp boobu mooy lan jant yàlla def ko ci muy leeral xolal jant bi bu xasee ba génn amul kër kii amul kër keneen lépp la yàlla di ànd la ànd di leeral moo tax mu ne siraaj mu ne moo tax mu ne siraajan wahaajan mu def ci làmp boo xamante ni bu leer la du am xaaj ak seen ñëpp lay leeral fi nga xamante ni mooy seen nekkuwaay yàlla mu ne wa anzalna min al mu'sirati ma an sajaaja mu ne ba ma defee loolu ba pare ma daal di génn ci niir yi wa anzalna ñun yàlla ñu wàccee fan lañ ko wàccee minal mu'siraati ci niir yi yàlla daal di koy toggale ba nga xamante ne nii bu taw jotee rek mu génn daal di nekk ndox boo xamante ni dafay génn taw ci li nga xamante ne mooy suuf si maa an ndox boo xam ni sa jaajan bu fatt lay doon mun a jariñ nekk loo xamante ni dafay jariñ ndox moo xam dafay génn ak génn dafay wàcc si si kaw suuf si yàlla subhaanahu wa taala di continuer di wax ay li mu def ci li mu def ci kaw suuf mu ne ndox moomu bu taxal ma wàcce ko mooy li nuxrija bihi habban wa nabaatan ngir ñu mun cee génne pepp ak li nga xamante ni moom mooy gàncax yàlla subhaanahu wa taala bu wàccee ndoxam mi mu jógee ci asamaan wàcc ci kaw suuf mu ne man maa koy def ñu génne ci ndox mi li nga xamante ni moom mooy habban mooy pepp comme dugub ceeb mboq ak yu demee noonu wa nabaatan ak li nga xamante ne mooy ay gàncax yoo xam ne dañuy génn ay meññeent meññeent yu ñu mën a lekk mooy comme ay figg ak ay fruits ak yu mel noonu yàlla mu ne wa jannatin alfaafan mu ne ma defal leen ay tool yoo xam ne yu sëq la tool yoo xamante ni dafa sëq naat rafet nekk loo xamante ne nii lu nëtax la fo tool yoo xamante ne nii boo koy xool sax sa xol bi dafay sedd ndax ni mu rafetoo rafetee ak ni mu taaroo yàlla mu ne kon su ma leen defalee li lépp xam leen ni inna yawmal fasli kaana miqaatan mu ne kay bis penc bis bi nga xamante ne mooy tàqale mbindeef yi ñu baax ñi ak ñu bon ñi mu ne bis boobu de kaana nekk na te musta deñ miqaatan di lu ñu réglé see bis boobu bu jotee dina ñëw te moom la ñuy mooy bis bi nga xamante ni si la ñuy fay ñu baax ñi li ñu def si la ñuy fay ñi safaanuñu li nga xamante ni moom la ñu liggéey yàlla mu ne yawma yunfaxu fi suuri fa tatuuna afwaajan mel dañ ne ko boobu bis ban la mu ne mooy bis bi nga xamante ni yow ma yun faqu bis bi nga xamante ni dinañu ëf fi suuri ci bufta ba bufta bi nga xamante ni waxoon nañ ko ci suñu tafsir yi passé yent bi sallallahu alayhi wasallam nee na malaaka mi ëf na ko guux na ay lexam ndogal rek lay xaar mu jigee ci yàlla subhanahu wa taala mu ne fa tatuuna bu keroogee ngeen ñëw afwaaja nekk mbooloo yéen ñëpp da ngeen di sulleeku seeni bàmmeel daw utal si ma ñoom ñëw par force la amul kenn koo xam ni dafay bañ wala dafay nangu ñëppay ñëw afwaajan ay jamaatin nekk ay mbooloo yoo xam ne dañuy uy si borom bi subhaanahu wa taala kenn ku nekk di nga génn ci sa bàmmeel daal di ñëw uy si si borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ni noonu la leen sàkkee woon yàlla mu ne wa futixati samaau fa kaanat abwaaban mu ne bis boobu dañuy ubbi asamaan mu nekk ay bunt asamaan xam nga ne dafa fermé wu instant yi ñun gis ñu dul asamaanu juróom-ñaar bi mu ne waaye bu yomal xiyaamee yàlla mu ne wa futihati samaau dañuy ubbi asamaan si fa kaanat abwaaban asamaan si nekk ay buntu mu ne waaye tamit bu keroogee wa suyiratil jibaalu fa kaanat saraaban mu ne bu keroogee tamit dañuy dox dañuy mokkal li nga xamante ne mooy doj yi mu nekk ñu ndax dafay nekk loo xam dafay mel ni lu seey doj dootul am yow doo xool fenn foo xamante ne ni dara mën na faa doj dangay yaakaar ni sax fii doj amoon na fi te xam nga ne asamaan si bu ñu ko xasee bu ubbi day mel ni dañ koo xar léeg-léeg mu ne wan shaqati sama su ko defee malaaka yi daal di wàcc nag su ko defee mu nekk ay buntu buntu yoo xamante ne nii moom la moom la ñuy jaar wàcc si suuf si fa ñuy àttee nit ñi ëllëg yowmal xiyaam su ko defee yàlla nag daal di jël xeer yi toxal leen mokkal leen ba nga xamante ni benn xeer du am moo tax mu ne wa suyratil jibaalu ñu soppi xeer yi def leen ñu nekk loo xam ne dafay seey fa kaanat saraaban nekk lo comme ngelaw bu ñuy ëf rek noonu la daj yi di mel ëllëg yowmal xiyaam mbokk yi li lañ leen indiloon tey ci suratul naba yi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala defal ñu dégg ak topp yàlla defal ñu ñu eggale koor gi comme ni ñu nga ni nga xamante ni noonu la ñu ko commencé tey nag ki nga xamante ni moom moo ñu solal mooy suñu rakk suñu xarit Aïssa Sy bi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla fay yiw solal ko ci mbubbu àjjana yi moo ñu solal tey li nga xamante ni moom mooy li ñu sol waaye tafsir bi nag ki nga xamante ni moom lañ ko tuddee tey mooy suñu doom suñu doomi xol suñu doomi bopp muy Aïcha Ndiaye ñu gën koo xam ci kade kade mbokk yi tey jii moom a jàngal suratu ama bi jàngoon na tamit ci ginnaaw suratul xiyaama ñu leen di fàttali ni bi muy dugg ci opération Mour say cër mënul woon a jàng xam mënul woon a jàng alquran waaye farloom moo tax bi mu ci duggeeg léegi gis ngeen macha allah mi ngi jàng ba sori na ba diñu taril nii alquran ñi di ko bégee bu baax a baax a baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yokk ko defal ko bu mokkal alquranul karim mokkal goo xam ne gu rafet lay doon gu mucc ayib lay doon kade yow la ñu may tafsir bi di la ziyaar bu baax a baax di la ndokkeel ci alxuraan bi li yàlla def sa jot a def sa dënn yàlla na la ko yàlla leeralal ba mu leer nañ sa bopp ba nga xam ne danga ciy jariñu yaa ngi mbooleem jullit aqulu ma tasmaun wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا
يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا
successful business leader to him. We are praying for him to successful in the business. Then we hope we continue to do more business with Mustafa Hemani.
Please welcome the distributor for Gambia, Sissoko Habatu Soda, Mr. Isaka.
شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب آه